mu dem yóbbu ko ci jàngu bi waa jàngu ba fekk mosuñoo xam loolu mosuñoo xam góor jigéen buñ fay indi na léegi moo tax ñu amoon euh, wax ca léegi léegi nag kan mooy yore mbiram bañ waxee kan mooy yore mbiram ci gaawantal ak ci tënk yooyu yëpp fa mujjee daal mooy ñu gis ne Sakariya ku ñuy wax ji góor gu ñuy wax Sakariya nañ ko ko jox ñu jox ko Sakariya pour léegi moom na ko yar Sakariya di ko yar foofu ci jàngu bi wax nañ ne saa yu duggee wala alquran sax ba tey moo ñuy nettali ne saa yu duggee ci moom nag dafay fekk moom ñam boo xam ne daf koy lekk ak ay meññantal yoo xam ne du xam fan la ko xana ko fi indi du xam lan la naka la demee waaye foofu itam daf koo laaj bokk na ci yar soo ñëwee ki nga xam ne yaa ngi koy yar nga gis mu amee lu bees loo xam ne léegi lii xamuloo fan la ko jëlee fexeel bi xam fan la ko jëlee ak naka la ko amee loola bokkoon na ci lam daan laaj Sayyidatuna Maryam ne ko léegi lii fan nga ko jëlee fan la fan nga amee lii ci loola wax nañ ne ay ñam lay doon walla ay meññeenteef yoo xam ne su fekkee ne meññeent yi nga xam ne rak na li ñu wax rak nga xam ne jeex na amatul moom yooyu la faa fekk du fa fekk mu meññeent yi nga xam ne yooyu la am jamonoom waaye yi nga xam ne jeex na bi nga xam ne kenn gisatu ko moom yooyu la fay fekk parce que loolu yëpp ci dogal yàlla la moo tax mu laaj ko ne ko lii fan nga koy jëlee mu ne ko yàlla xamuloo ne yàlla mooy wërsëgal ku ko neex wërsëgal ko lu ko neex itam. yalla ba mu ne ko yàlla boobu nga xam ne mooy suñ borom mooy def lu ko neex ko neex it mu wërsëgal ko wërsëgal ko lu mu ko neexee lu neex mun na koo def mun na koo itam ne ko koy wërsëgal moo koy indil foofu la njëkk commencé gis kiimtaan yi waaye beneen kiimtaan boo xam ne léegi mu ngi ñu ko nettali ci saar bi ma wax noonu ne mu ngi ñu ko tuddee mu ngi ko tuddee yaayam nga Mariam muy suratu Mariam texte bi nekk ci alquran bi léegi ji mu nga fa mu di ñu wax ci alquran bi rew waskur fi kitaabi maryam isin tabasat min ahliha makanan sarqiyan foofu mu ngi fay wax nee na fàttalikul nag joo xaaral ma ñëw maryam dafa am benn bés boo xam ne dafa nekk ca penku fi nga xam ne mooy seen place bi fi dëkk dafa dem ca penku ba manam ci xaw ah, ko sori tuti daal di nekk foofu toog fa yàlla muy nettali mu fa arsalat ilayha ruhana fa arsalna ilayha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya mu ma daal di fa suma ndaw ci suma ndaw loola mooy ruhuna nga xam ne ñu bari wax nañ ne jibril dafa ibal jibril foofu mu fekk ko fa jigéen boo xam ne mu nga dem toog palaasam toogi palaas yi boppam mu gis waxambaane woo xam ne mu ngi rafet nekk nit koo xam ne doomu aadama la mu gis ko mu ñëw jëmal si ko mu ne ko musal ma awusu bi rahmaani minka in kunta taqiyan maa ngi muslu yàlla ci yow yow xaw ma kan nga waaye léegi musal ma de jéggal ma baalal ma demal moom itam muy waaxu rek ut si ko muy ko wax loolu di baamtu loolu maa ngi muslu yàlla ci yow su fekkee ku ragal yàlla nga bàyyi ma ma man ak sama bopp bu ma jéem a def dara léegi bàyyi ma bàyyi ma nii kooku itam far taxaw jàkkaarloog moom ne ko man sa ndaw boroom la alxuraan du ñuy wax ne daf ko wax ne ko innama ana rasulu rabbuki man sa borom moo ma ebal de ci yow fii moo la ebal mu ne ko waaw pour lan mu ne ko li ahabi lakki xulaaman sa kiya pour ma may la doom nag tey loolu la ma ebalee sax pour ma may la doom nga am doom mu ne ndaw si jàllar bi ko ne ko ana yakunu haasa léegi man loolu naka lay war a amee pour léegi ma am ma am doom man fi nekk naka lay war a amee man awma jëkkër man benn góor jegewut ma xawma sax loolu li nga xam ne moo war a dox diggante góor a jëkkër ak jabar wala góor ak jigéen ba léegi doom di ci mën a sosu man yooyu xawma ci dara bon naka laay mën a amee doom mu ne ko mbir mi nag lu pare la sax de waaye soo fàttalikoo nag ni yàlla bindee woon bakkan boo xam ne du loon dara nga fàttaliku itam ne mbirum yàlla moom lépp lum soxla rek dafay wax ne kun loola dal di ne kun nekkal loola dal di nekk bon lii du la jaaxal xam naa mooy jéem a xalaataat ne loolu dina doy dollu doy waar waaye léegi mu ne malaaka ma def la muy def ñu ne dafa ëf walla daf ko joxoñ wala dafa def lu mu mun a def waaye li nga xam ne moom la def rek laa daa fi ne Mariam bi nga xam ne moo taxaw ci booram mi muy waxanteeg moom lii lu mu yëg rek mooy biir bu gi bu diis gand boo xam ne sax toll na ci koo xam ne mu ngee matu jigéen ñi bu ñuy matu fi ñuy toll noonu foofu la jaaral bi ko rek gis li nga xam ne moo doon waxanteeg moom gisatu ko yëg na ci biiram jigéen joo xam ne mu ngi war a matu boo xam ne léegi toll na ci mat mu ne noonu la jaaral bi ko rek seen benn pakk muy dox ndànk nii mu gis benn pakk pakk mooy garab boo xam ne dañ ko dagg ba nga xam ne léegi bant ba rek moo fa des taat bi taat bi mu ne mu seen ko di dem nag pour jàppandiku ca ndax fi mu nekk nii mënatut a dox sax bu baax bam jàppandikoo ci pak garab bi rek dal di sukk foofu dom bi dal di judd wala mu gis pakk garab boobu jeb bi nek garab mag ba ca kaw doom bi dam dal di judd muy xelaat nak man lii naka laa koy def ak lan lay wax ak fan la jëm foofu alquran mu ngi wax ne fa ajaa maqaadu ilaa jisi naqdatin qaalat yaa laytani mittu qabla haza wa kuntu nisyan mansiyan loolu mooy ne man de yàlla reyoon ma sax ma dee ba kuñ nekk kuñ fàtte mu ma gënaloon bis bii tey nga xam ne lii mu may jox doom boo xam ne mu duma ko mun a lay mukk ne lii naka laa ko amee ca mu duñ ma wax ne léegi dama doon koo xam ne damay nekk ci caaxaan mu mel ni xisa bu gudd la ca wax nañ ñu ne sax léegi euh, mbir mi mu ngee jeex si dañu wax ne waxtu li liñ ci ne am jeex na waaye léegi